bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyoo fii fii jumaay Tuubaa ju tedd ji ci seen jataay bii nga xam ne moom ngeen baaxoo ànd ak ñun te e, muqaddamatul xidma TV MK TV di ko taxawe ànd kook daayira bi nga xam ne mooy daayira bu xadamatul xidma bi saytu jumaay Cheikhul Xadim ji ci ndigal ñu ngi nuyu ñëpp kon ci seen seen jataay bi nga xam ne mooy xayaat Cheikhul Xadim di dunduk Cheikhul Xadim ñu baaxoo ci ànd ak yéen ci ñaar fukki fan ak juróom yu ne ci weer wi bala ñoo def dara ñu ngi ndokkeel ñépp ci xew-xew yu màgg yi nga xam ne ci lañu bàyyikoo te bi ci jiitu di xew-xew màggal gi di bis bi nga xam ni mooy moom la Cheikhul Xadim santaane woon ne bu ñëwatee koo xam na sama mbég sa mbéga nag ma ci yàlla yàlla dogal na ñu def ko ci jàmm euh, ñu ngi ñaan suñ borom mu nangul ñu lépp luñ ci def ci xeetu jaamu yàlla te may ñu fekk ko at yu bare bare bare bari te ànd kook kilifa gu tedd gu baax gi nga xam ne moo ne ci kanamu njaboot gi te a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér mu àggale ay yéeneem ak i naalam ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax di ko ndokkeel itam di ndokkeel ñëpp ci Euh, bis bu tedd bi nga xam ne mooy al mawlidu nabawi sharif di bisu gàmmo nga xam ne moom itam euh, ku wax gàmmo wax gan ak jamono sayidina muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moo doon lépp sëriñ bi doon sëriñam doon buntam doon kerkeraanam waaye doon njaatigeem li nga xam ne moom na doon liggéeyal moom sëriñ bi mu doon jëwriñ ji waaye itam doon soppeem doon xaritam itam kon ñu ngi ciy ndokkeel mboolem jullit ñépp alaalam islaami bépp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala li lépp luñ ci def ci ñaan yàlla nongul ñu ko ak ci xeetu jaamu yàlla yépp dem dëppook sunna yàlla ñu ko yàlla nongul te may ñu fekk at yu bare bare bare euh, li ngeen ko baaxoo amee nag ci jataay bi bu ngeen fàttalikoo jataay yi weesu ñoo ngi doon waxtaane li ñuy tuddee al muhaytu al usari al bi al usariya li cheikh al te mooy nja li nga xam ne mooy environnement familial bi sëriñ bi gimmee ñu jiitu muy dem ci daara ji ngir war jàng jàng euh, alquran ak xam-xam ak wàllu yar ñu jotoon indi ci jataay yi weesu lenn ci jikkoo ak melo yi ñaari waajuram yu baax yi nga xam ne moo moo doon a Cheikh Mouhamad Mor Omar Sali Mbacké xam ne mën nañu wax ne mooy sëriñam bi njëkk ci sëriñ yi ci ñi nga xam ne <clears throat> ñoo ko toqi ci wàllu jàng ak def ci moom xam-xam ak yar euh, bañ ci jógee waxtaane woon nañ itam aslëf ci jikkoy way juróom bu jigéen wu baax ba soxna jaaratullahi Mariama Buso moom itam doon bu dul buñ ko jàppewul sëriñ bu ko jàngalit mënees naa jàpp ne taxawoon na taxawaayu way jur wu jigéen wu mat li mu doon ci wàllu yar ci wàllu jubbanti ak ci wàllu orienté doonte Euh, seenu nekk xëy na bariwul waaye ku ne xam na ne am na jeexit ju am solo joo xam ne soxna jaara ak yaram def na ko ci doxinu sëriñ bi moo taxoon ñu dugal ko foofu en tant que ndey waaye nag en tant que royukaay ak it yarkat ci loolu nag ci la ñuy wéy jataay yi nga xam ne moo ci topp te mooy rek tudd yenn ci jëmm yi nga xam ne yàlla dogal na ñu am lu ñu jeexeetal ci sëriñ bi ñenn ñi ni ma ko waxee ñu mën leen a tuddee ay sëriñam ci wàllu jàng xam ne bu ñu leen tuddee xamle lenn ci seeni jikko ak seeni jaar-jaar ci li jot a am ci gëstu dana tax bu ñu demee ba ca uh, toll ci am njàngam tudd ne diw diw sàng jàngal nañ diw sàngam jàngal na ko soo baa kenn du laaj lu tax danañ xam ne kooka ko mate la te ku maanaam dajale charte yi tax mën a doon sëriñub sëriñ bi ci wàllu ci wàllu jàng ak yar ñooñee nag eh, am na ca eh, koo xam ne tey ji incha allah ci moom la ñuy ñëw muy eh, ku ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe siiw na lool ci tiir yi ak ci nettali yi ne jàngal na sëriñ bi waxuma sax jàngal na sëriñ bi waaye bu ñëwee ba ci kanam danañ gis sax ne bi sëriñ bi tollee ci jàng alxuraan bokk na ci ñi nga xam ne ci ay loxoom lañ njëkk a tàbbi ñu def ci moom alxuraan moom tafsir moom yi nag day ko am solo di ko am maanaa itam ci askan wi waaye itam di ko am solo di ko am maanaa itam ci wàllu diine ak xam-xam ak jikko moo tax waxtaane ci moom euh, waxtaan ci moom dana am njariñ ci képp koo xam ne gëstukat nga waaye képp koo xam ne itam ku bëgg a roy ku baax moom nga Eh, liñ ci indi nag xam naa du doon lu yaatu noonu lool ndax yàlla dogal na xëy na liñ ci bind bareegut wala liñ ci gis ñu bind ko bareegut ndax bu weesoo liñ ci amee te jële ko ci minanul baaqil qadim cheikh mahamadul bachir andi ko ñu dolli ci li nga xam ne moom lañ jële ci miraatul absaar bu sëriñ Musaa Ka daanaka pour nga gisaat leneen loo xam ne loo mën a sukkandiku la dana xaw a jafe waaye ci loolu rek la ñu sukkandiku kon andi ci loo xam ne dana mën a doon njariñ tey ci jataay bi incha allahu eh, ci wàllu moom ci boppam mooy kan eh, aw askanam ak it eh, ay meloom wala ay jikkoom yenn yi nga xam ne gis nañ ko ci luñ ci luñ ci bind te ni ma ko waxee mu jóge ci minan wala mu jóge ci miraat moom tafsir nag baatub tafsir bi xam ngeen ne euh, titre la maanaam aw dàkkental la woo xam ne dañ ko faral baaxoo di dàkkentale koo xam ne danga nga euh, jàng alquran tafsir ko dégg ko ba noppi di ko tafsiral ay nit nga xam ne baatu tafsir ku ne xam ne baatu arab la waaye dëgg-dëgg bi mooy mufassir mufassir ki nga xam ne day firi alquran te man ko lool Euh, kon ñañ ko daan jox ñu ko daan tuddee ay ñu ko mate lañ daan doon yoo xam ne seen xam-xam du ko ndax tafsir alquran yombut xam ngeen ni faaw mu am bagage yu bari yu sakkan yoo xam ne moom la nit ki dajale ngir mën ko ngir mën koo taxawee moom tafsir nag loolu dàkkental la woon ci moom comme ni ñu koy dàkkentale ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des waaye turam dëgg-dëgg Muhammad la sant Mbàkke itam nag ñu di ko dàkkentale ci Euh, woy juróom bu jigéen di soxna ndumbe moo tax ñu wax tafsir mbàkke ndumbe muhammad mbàkke ndumbe mi nga xam ne mu fassir la mooy mooy maanaam tur moom nag soxna ndumbe moom mu ñu koy dàkkantele euh, bu ñu ko euh, bu ñu ko déggee danañ danañ xam ne kon mook soxna Asta Waalo ñoo bokk way jur wu jigéen woowu yi di soxna ndumbe ñang ndumbe daanu ñang waaye ñoo bokkit way jur wu góor muy eh, ah, ahmadu soxna buso ñu ngi gën koo xam ci ahmadu soxna buso ahmadu soxna buso doomi maam maharam la mooy way juru tafsir mbàkke ndumbe mi waaye di way juru soxna asawaalo mbàkke mi waaye itam nekkit waaye juru ku ñuy wax soxna Bousso Mbacke soxna sa Mbacke moom itam mook soxna Sawaalo ak Tafsir Mbacke Ndumbe ñoo bokk ndey ak baay moo tax Tafsir eh, am ñaari wàll yu mu yu yu yu mën a xam yoo xam ne doon na ko ci sëriñ bi doon na bàyyi taxu sëriñ bi waaye doon itam maami sëriñ bi ndax nijaay la ci woy juróom wu jigéen di soxna jaara ndax buñ xamee ne moo soxna astawaalo ñoo bokk lépp kon nijaay lay doon ci soxna jaara mi nga xam ne doomi soxna astawaalo la soxna jaara di woy jur seexul xadim kon ci wàll googu maam la waaye bàyyi tëx la ndax eh, ahmadu soxna buso mii woy juru tafsir mook maam Balla ay mi caatum maam maharam te way jutu maam Mor Anta ñoo bokk maam maharam kon day mel ne euh, maam Mor Anta euh, doomi bàyyi tafsir la ndax seen ñaari baay ñoo bokk benn baay loolu moo tax mu mu mu doon bàyyi tëx ci sëriñ bu mag bi ak ñi mu bokkal sëñ Mbàkke Mor Anta hmm. kon ñaari wàll yëpp doon na ko moom tafsir nag yàlla dafa dogal bala ñuy ñëw ci e, li Cheikh Mouhamadul Bachir seede ci moom dañuy dem ci sëñ Moussa Ka laaj ko njabootuk tafsir Mbàkke Dumbe ñu mu doon yàlla dogal na moom amoon na ay doom yu góor waaye doom yu góor yooyu nag dañoo dundut ñi fi bàyyi nga xam ne ñoo meññi sëti maam tafsir yi fi nekk ñooñu ci ay doomam yu jigéen lañ bàyyi ko moo tax sëñ Musaa Ka ci miraatu ul absar mu wax ne ginnaaw bi mu xamlee woy juru tafsir di Ahmad Soxna Buso mooy kan ak lam wax ci moom ndax bokk na ci lam ko melale moom Ahmad Soxna Buso ne ku amoon diine la te bari woon xam-xam te fonkoon jaamu yàlla suñ Musaa wax na ci ni sax su musaana dégg ak noddu fitna jëm daan àndal ngir yàkkamtee dem julli ji daana àgg sax léeg-léeg ci eh, doxi dox doxin woo xam ne sax eh, mën naa àgg ci di xotti sax ay yéreem eh, te loola doonte xam na ne moom jàng na xam na ne Euh, buñ noddee ngay dox liñ santaane mooy ngay dox ndànk jëm ci jàkka ja ni ko xadis jàngale waaye euh, tawxiid ja ak fonk ga jaamu yàlla ak yëgg boromam moo taxoon fu masaana dégg ak noddu daawut ànd ak sagoom loolu gis nañ ni sëtam yu baax yi ku mel ne Cheikhul radiallahu anhu ardah mel na doon na ko ca loola ndax moom itam fu masaana dégg allahu akbar wax nañ ne bu ko masaana fekk muy Eh, yor baraada attaaya sax da koy wëcc mu daanu eh, ngir kàddu yàlla gu foor googu te loolu nag dafa bokk ci sifaatul mumini saadiq al mumin al xaq innama innama al muminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum la yàlla wax bokk na ci ñi melo yi ñi gëm yàlla dëgg-dëgg saa bu ñu tuddee yàlla fi ñoom wala ñu dégg tur yàlla rek allahu akbar fu ñu ko dégg rek seen xol day rët dañuy rët te tiit dañu am wajal ci xol noonu aaya yooyu noonu la ko toppe ba ci juróomi melo yooyu nga xam ne moom la melale al muminuun as saadiquun yal nañ ci yàlla boole kon tafsir baayam noonu la meloon te amoon soxna bu soxna sëñ Musaa Ka nag wax na ci njabootuk tafsir ne moom lu jiitu muy ñëw ci doom yi dafa njëkk a wax ne tafsir mi nga xam ne doom yi Ahmadu soxna bu soo ku bari xam-xam la woon sëñ Musaa Ka mu ne Tafsir ku bari xam-xam te loolu sëñ Basiru andi na ko ca seede ba mu seede ca moom ca minam mu ne waaye ku bari diine la woon lool bari woon xam-xam lool te bari diine lool mu ne it ku dëddu àddina la woon itam nag yaakaar na melo yooyu rek doy na ci xamle jikko jikko yi maam Tafsir Mbàkke Ndumbe ndax bari xam-xam ba noppi teg ci bari diine dëddu àddina loolu kooku mooy nit ku baax mooy kooku mooy nitu yàlla kooku mooy koo xam ne royukaay la euh, mu teg ci nag ne moom tafsir maam tafsir Mbàkke Ndumbe euh, dafa dem Mbàkke fab fa soxna su baax suñuy wax soxna Zeynabu bu Baati Mbàkke bu Baati Mbàkke mii day doomi baayam ndax doomi Sayer soxna bu Buso Sayer mooy Saïd te Sayer soxna Buso ak Ahmad soxna Buso ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp soxna bu Baati mii nag doomama moom la tafsir maam tafsir jël am ca ku ñuy wax soxna Asta Waalo Mbàkke mi nga xam ne mooy way juru sëriñ Mamar Asta Jatara Ilimaani Mbakke Bawal kon gis nga waa Jatara yi ñoom foofu lañ sëtoo ci maam Tafsir wala bokk na ci wàll yi nga xam ne sëtoo nañ ko ci maam Tafsir Mbakke Ndumbe sëñ mu saaka teg ci ne gannaaw ba bi mu amee soxna Asta Waalo Mbakke moom yi nga xam ne mooy woy juru sëñ Mamar Asta Jatara Ilimaani Mbakke teg na ca doom ju ñuy wax Ibra Seyna bu Mbakke waaye ni ma ko waxee sànq moom yàlla dafa dogal ay doomam yu góor moom maam tafsir dañoo dundut kooku génn àddina bàyyiwu fi doom sëñ Ibra Seyna bu moomu ba mu ci jógee sëñ Moussa Ka wax ne moom maam tafsir mu dem mbayeen fab fa soxna su baax suñuy wax soxna raxmata mbay ramata mbay mu leen wax rama rek Euh, am ca soxna Mbacke oh, mu ne soxna Mbacke moom mu ca am jamono bi sëñ Moussa bind bind mbind mi wax ne boobu mu ne mangaak góor gu baax gu ñuy wax sëriñ Ahmadou Binta Si mu tekki ne amul keneen ku dund <coughs> kon day mel ne soxna Mbacke la am ci soxna Ramata Mbay moom yi Euh, ba mu ci jógee moom maam tafsir mu dem cekkeen faf fa ku ñuy wax soxna su baax suñuy wax soxna ja sekk soxna jasek moom yi mu am ca ku ñuy wax soxna asta ja mbàkke soxna asta ja mbàkke moomu nag mooy way juru sëriñ mbàkke ramata mi nekkoon saam sëriñ mbàkke ramata di maami al aalim al allaama al adib al faqih suñu mbokk suñu xarit sëñ Mbàkke Abdourahman ndax moo jur baayam moom sëñ Mbàkke Ramata moom yi nga xam ne soxna Jambàkke so soxna Asta Jambàkke euh, mooy woy juram euh, kon sëñ Musaa Ka ki ne amul keneen nag ku dund waaw kon bu dee ci cekkeen kon bu dee ci ci cekken fa la la la la jële soxna ja Sekk am ci soxna Asta Ja Mbàkke mi nga xam ne mooy wajuru sëñ Mbàkke Ramata mi ma wax léegi ne mooy maam maami sëñ Mbàkke Abdourahmane na ko yàlla dolli fan wu gudd lool te dolli ko wér te gën a barkeel xam-xam bi te baril ay kemam moom maam tafsir sëñ Musaa Ka teg ci ne ginnaaw bi nag mu dem Jolof jël fa soxna su baax suñuy wax soxna Aysatu Njaay am ca ku ñuy wax soxna Asta Mbàkke waaye mu nee na mu faatu maanaam mu teel a dem mu teg ca keneen mu am ca ke mu am keneen ku ñuy wax soxna Zeynabu Mbàkke soxna soxna bu Mbàkke moom yi nag wax nañ ne mooy caatum maam maaram ndax moom bi maam bi baayam di génn àddina booba booba ganeegul jamono waaw booba sëñ Moussa wax na ne booba juróom benn weer rek la am la la la amagun ak way juróomu jigéen ci la tafsir nelaw nga xam ne kon moom xamut baayam moo tax ñu ne jàpp ne kon mooy caatum euh, tafsir euh, moom euh, soxna bu Mbàkke moom yi nag mooy way juru sëriñ Cheikh Mbàkke mu nekkoon Mbampana te gën a siiw ci sëriñ Cheikh bu suñu Cheikh Seynabou booy juróom bu di sëñ Ibra Ndumbe mi bokk sëñ Mandumbe hmm, kon moom sëtub tafsir la direct ndax moo jur soxna Seynabou mi ko jur hmm, ak ñi mu bokkal euh, ginnaaw ba tey itam sëñ Moussa wax na ne itam tafsir jëloon na soxna su baax suñu wax soxna Binta am ca ku ñuy wax soxna ñaaw Mbàkke soxna ñaaw Mbàkke moom yi mooy woy juru sëriñ Saïd Mbàkke mu baax mi nga xam ne moo nekkoon ak Cheikhul Khadim te daan root njaq yu siiw yooyu ñu xam ci kër gu mag sëñ Saïd moom yi bokk ak ku ñuy wax sëriñ Mor Bousso sëñ Mor Bousso di woy juru sëriñ Touba Mbàkke mi nekk Bagdad sëñ Saïd mi ma tudd xam ne ñi itam mooy juru sëriñ Fàllu Mbàkke mu baax mi nga xam ne moo fi bàyyi ko bu yàggut rek te euh, noppaloo fii fi jumaay Seexul Xadim ji te booba fekkoon ko mu ne ci ak julli te loolu yàggut na suñu borom dolli ci moom leer te dolli ko ci maam yi ak ci bàyyi kon ci tënk ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la fi tafsir bàyyi ñu doon ay doom yu jigéen yu sell yu baax yoo xam ne ñi setoo ci maam Tafsir Mbàkke Ndumbe mi ñuy waxtaane ci ñooñu la ñu soqi ko euh, li ma wax nag maa ngi ko tuxale ci miraatul absaar bu sëriñ Moussa Ka rahimahullahu taala wa radiya anhu bu ñu delloo ci minanul baaxil xadim nag danañ ci fekk moom it seede su am solo soo xam ne borom minan seede na ko ci maamam jooji di tafsir Mbàkke Ndumbe ma fàttali it ne maam tafsir moom yi jële naa ci sëriñ Abo Mbàkke al imaam yàlla yàlla dolli ci moom njëggal ak yërmande ak ngërëm ak leer mu wax ne moom la sëriñ Bousso be tuddee alxaaji Mbàkke Bousso kon sëñ Mbàkke day mel ne turam dëgg-dëgg mooy Muhammad Bousso di tuddee ko maamam ndax waxoon naa ne tafsir nijaay soxna jaara la te bu dee nijaay soxna jaara kon day daal doon nijaay sëñ bu bi ndax sëñ bu soobee ak soxna jaara ñoo bokk lépp ni ko xamee te sëñ Abo Mbàkke wax na ma ne tafsir lañ tudde sëñ Mbàkke euh, loolu rek day wane kon fi nga tolluwaay bi nga xam ne amoon na ko ci askan wi ndax euh, ñoom bu ñuy bu buñ buñ buñ ko dee tuddee doom tekkiwul ne dañoo bokk ak moom waaye dañoo gis ci moom jikko yu ko mat yu ko mate ci ragal yàlla ak sàmm ak maandu ak xam-xam ak yiw ak mboolem jikko yu baax yépp ci loolu nag moo tax borom mi nan wax ne moom tafsir mi ñuy waxtaane dafa nekkoon nit ku baax nit ku baax ku bari xam-xam. te bari diine kon loolu dëppoo naag lii sëriñ Moussa Ka indi ca miraat moog lii Cheikh Mohamad Mouhamadul Bachir wax day mel ne sëñ Bachir dafa bind ci arab rek sëñ Moussa Ka wolofal ndax sëñ Bachir dafa ne wa kaana rajulan saalihan aaliman dayinan te loolu mooy la sëñ Moussa waxoon ca baati wolof ya waaye Cheikh Mohammadul Bachir teg ci ne bokk na ci liy rafetal njort ci maam tafsir ci loo xam ne mënees na ko tudde gaat nga gu rafet te nee na sallallahu alayhi wa fonkoon na gaat nga gu rafet ci tur ak ak meloog yooyu mooy ne maam tafsir moom yi bi muy wàccu liggéey da koo fekk muy bind ab kaamil nee na kaamil boo xam ne na mu ko doon binde mooy da koy bind ci ñaari wet nga xam ne dafay tàmbali ci xaaj bu njëkk ba su bindee aw xët walla ak wet ngir bañ a toog di xaar xët woowa wow mu koy yeexal ndax wutal na ko ab bu bëgg mu àgg ca boo du ko weesu su bindee ab xaaj walla su bindee aw xët ci xaaj bu njëkk ba day da koy bàyyi foofa teg ko dem jël ci xaaju suuf ba lañuy ñuy xaaju suuf wala xaaju ñaareel ba bokk ndax ndax Seexul Xadim daan wax ne ci dégg yàlla ak fonk alxuraan daa wax ne alxuraan amul xaaju suuf lépp xaaju kaw rek la maanaam lépp xaaju kaw lépp daal ci ci kaw la bàyyi ko am amut xaaju kaw ak suuf lépp kaw la kon ci xaaju ñaareel ba lay daal di dem tàmbaliwaat fa bind geneen wet bu ca noppee fekk lim bindoon ci xaaju njëkk bi wow na mu ñëw wéyal àggale geneen wet ga bu noppee demaat ca xaaju ñaareel ba ngir euh, ndikk wet yi wala xët yi di ko xaar daal du ko yeexal ba mu mën a wéyal am mbindam ci waxtu wa nga xam ne ci la bëgg mu àgg ca nene bi nga xamee ne mi ngi ci mbind moomu na di bind kaamil boobu ba yàlla def xam naa mu war a génn àddina fam fam yem ci xaaj bu njëkk ba mooy aay bi suñ boroom di wax ci alquran ne ci suratu ali imran ñi nga xam ne bu ëllëgee seeni xar kanam day weex tàll ñooña de ci yërmande yàlla la ñuy nekk ci la sax ba faaw ci xaaju ñaareel ba te mooy aaya aaya boobu te mooy wa amma alladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidun loolu kon yaakaaru na aay bi nga xam ne ca la yem nag ca xaaju ñaareel ba booba moom ma nga ca e, suratul furqaan mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee ne asxaabul jannati yowma idin xayrum mustaqarran wa axsanu maqila ñooñ àjjana day waa àjjana de bu ëllëgee ñooy ñi gën ab saxuwaay ñooy gën a rafet ak kendal itam maanaam ab nekkuwaay ak fu nit di sax kon boo boolee ñaari aay yooyu bee di wax weexu xar kanam yi ñi texe bii di wax ñooñ àjjana niñ dàqale niñ dàqalee ñu dul ñoom ab ab nekkuwaay mu yem ci ñaari aay yooyu yàlla moom ko moom tafsir ah loolu nag wax dëgg yàlla gaan gënu ko rafet moo tax Cheikh Amadou Bassir daal di jeexal wax ne yàlla na yàlla dëggal ci moom gaan nga googu te yërëm ko yërmaane ju yaatu te fayal ñu ko yiwu baree bare bare kon lii bokk yi ci tënk mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon a indi ci euh, dund maam seen Mbàkke Ndumbe euh, doonte nag ni ma ko waxee léegi xam naa ne ak dundam gën na yaatu loolu gën na euh, am solo lii ñu wax it doonte lii am na solo waaye ginnaaw ni ma ko waxee liñ ci bind xëy na taxu koo bareegoon doonte borom xam-xam yaa ngi ci liggéey sëñ Mbàkke Abdourahmane mi ma tuddoon léegi mi ngi ci def ab liggéey bu am solo di ci di ci gëstu am na ci yoo xam ne sax léeg-léeg buñ ci amee luñ bëgg a leerlu ci moom la ñuy dellu ba tax na kon ñu ngi koy sant bu baax ci jàppale gi di wax rek ne incha allahu taala kon danañ dellusiwaat ci yeneen jotaay yi ñëw àggale li nga xam ne moo des nag ci. Euh, jëmm yu tedd yi nga xam ne ñoo waroon sëriñ bi te bi sëriñ bi tolle demee ba tolle ci war a jàng ñu jaar ci euh, ci ci ci seeni loxo kon ñu ngi incha allah yamale fii suñuy kàddu di sant bu baax itam suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci wàllu xarala gi nga xam ne ñooy jël xëy na image yi ak ak ak ak kàddu gi di ko di ko jàllale rawatina ku mel ne sëriñ Jiila Abdul Xaadir Buso yi nga xam ne moo ne ci intique bi yore wàllu xarala ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di sant ñëpp di sant it ñi nga xam ne ñoo ngi doon teewlu leen jox daje incha allahu ci fii weer di ñaan yàlla defal ñu dégg ko ànd ak topp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bi jaayi xayril xalqi nixmal jaydoo